ñuy seetaan ñu ngi fii ci Rivadavia ci bitigu Serigne Habib Sy bu sëñ Mouhamadoul Mansour Sy Touba TV nag ñëwoon fii xam ngeen ni Mouhamadou Lamine Faye mi ngi waat été 2019 bu baax loolee taxoon mu dem Siin dem ci yeneen dëkk indi bépp bagage boo xamante ni Sénégalais yi dañ koy soxla ci été 2019 bi la neex nag mooy sans prix yi muy ay prix yoo xam ne yomb la yu mucc ay yomul fenn am na lu ca dàqati nag am na ay correspondant ci yenn dëkk yi kon xam naa rek Mouhamadou Lamine xéewal gi nga indil mbokk Sénégalais yi ci lañ la bëgg laaj bu ko defee nga gën ñu yaatal yan la ak prix yi macha allah. waaw mbokki sénégalais yëpp ñu ngi leen di ziare bu baax a baax di leen baalu àq ci di leen baal ci eh, kontaan ci bépp. kuy siifar Touba TV Argentine rek ak dëkk boo mën a nekk ñu ngi lay ziare bu baax a ah, di la nemmeeku di am contentement bu baax di jàkkaarloowaat ak mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo safoo Touba TV ak eh, di ko seetaan ak eh, mbokk yi nga xam ne it ñu ngi siifar ah li jëm ci été bi. ah ñu leen di ziare di leen bëggee bu baax a baax a baax. tudd yaa ngi koy waaj bu ak nga génn dem réewu Siin ak yeneen réew. indi ngeen ay bagages yoo xam ni gis nañ ko ci image yi prix wax dëgg yàlla am na client yu nu dajal sax wax nañ ni mucc na ayib loolu mën si waat waaw loolu noonu lu nekk la ndax li tax ñu euh, sensé prix yi mhm. defaat ay yeneen prix yu mucc ay ba pare euh, sensé bagage yokkaat sax sensé wuñu mais danoo yokkaat yeneen mhm. euh, modèle yoo xam ne amuñu ko woon mhm. ndax yàlla def na ñun ñi ngi demal suñu bopp léegi di dem siin di ko jëndal suñu bopp di ko andil suñu bopp ba tax na ñu am ay prix yoo xam ne nag ah, dañ koy mën a am mën nañ laa jaay sax nga jaayaat kuy jaayaat ci biir dëkk bi kon loolu noonu xéewal yooyu yëpp yàlla def na ñi ngi koy am mhm. ah di sant yàlla bu baax nag ba pax ba tax ñu gën a mhm. wàññi yi mhm. bu baax a baax kon li ci gën a neexit mooy li lépp am na fi gis nañ fi ay weer gis nañ fi ay montre yu góor ak yu jigéen ay seen bépp bagage yi maanaam Sénégal bagage yi ñu été daal yëpp li wax noonu da nga ci dolli yaay suwaasiir waaw waaw parce que am na Bulsera uh-huh. am na Thiène am na montre yaay choisir mm-hmm. ba tey bari na ay saakit nag bari na ay saak déporté ak ay bolso yoo xam ne été bee ko tax a jóg dolliwaat ci yaay choisir ba tax na nag mm-hmm. ñun ñoo ngi fii nii di yombal affaire yi ak fépp fu sénégalais mën a nekk mm-hmm. même bagage soo ko soxlaa vingt quatre heures boo dugalee xaalis bi mën ngaa am bagage bi surtout ñi nga xam ne ñoo nekk mën nañ la dugalal sa compte maanaam def def ko defee commande même bu leen neexee sax ba la ñuy dugal xaalis nañu wax ni bagage nangam ak nangam la ñu soxla mhm. su ko defee ñun bu boobaa danañ fexe mhm. maanaam euh, xool li nga xam ne moom nga soxla mhm. gën nga jege Sénégalais yi gën leen jàpp ndal seenub été mu gën a neex noppal leen ba tax na ay géej yu mag tànn nga ko ñoo xam ne teg nga fa ñoo xam ne yor nañ bagage yi ngay jaay nga xam ne ki nga xam ne nekk na foofu noonu jëratul muy dagg paas di ñëw waaw loolu am na bu fekkee ne que Plata nga nekk yaakaar naa ñu bëri xam nañ Daouda Faye waaw mu nekk Rivadavia en 2119 mhm. en face place à Colonne soriwut la Rambla dara mhm. bu fekkee ne da nga dem euh, La Gourouta Ibrahima fay sama rak moo fay nekk mhm. année bu jot yaakaar naa ne numéro ak yëpp dana jaara ci publicité bi mhm. bu fekkee da dem Salta mhm. góor a ka moom moo fa nekk Salta capital mhm. moom it loo soxla boo ko ko moom bagage ba sax ma nga fa nag jàppandi na fa ban ba pare kon daal ne ci géej yooyu jëratu ñuy déplacé di ñëw capital di jënd déedéet jaaratu ko ci am na yeneen géej ak yeneen géej yoo xam ne xëy na tuddaguñ ko ci publicité bi waaye buñ demee ba ca kanam incha allahu danañ fexe maanaam euh, jox leen ay coordonnées yoo xam ne bu ngeen fa eggee it incha allahu di ngeen am di ngeen am ñu leen ñu leen jaay bu dul loolu nag foo ak foo mën nekk nekkul ci géej ci nekk ci jéeri ji foo mën a nekk it bu fekkee nekk yónnee nga ñu xaalis ci numéro suñu numéro compte vingt quatre heures bu yàggee ba yàgg trente huit heures mooy deux jours nga jot sa bagage te it comme li ma ci doon wax mooy même bu fekkee ne bala ngay dugal xaalis su la neexee mën nga wax bagage bi nga bëgg dan la koy fotol yónnee la ko nga ne bii laa bëgg bii ba tànnal sa bopp ne lii laa soxla loola waaw ñu takkal la ko loolu lan lay jaay loolu lan lay jaay su ko defee loolu noonu euh, dina tax maanaam ñi ñuy liggéeyandool ci nekk ci àll bi ñu am confiance ci li ñuy def ci mhm. it incha allah képp koo xam ne dugalal nga ñu xaalis mhm. jàppal ne sa bagage mi ngi ci say loxo mhm. say loxo waaw bokk na ci sab liggéey ñi nga xam dañu yor ay local fi doon ay sénégalais doon jënd ak sinwaay ak lu demee noonu hmm. ndax yaa ngi liggéey ak ñoom waaw am na ci ñoo xam ne euh, ñi ngi liggéey ak ñoom ngi liggéey ak ñoom hmm. ah, ku ci bëgg bu lu mel ni bisu tëri it ba tey ubbil nañ ñëpp bunt hmm. ku ci bëgg bisu wala bisetera wala yeneen façon yi xam ne ñi ngi koy jaay fii nii ci nga ko doon jënd ci euh, sinwaay yi boo ñëwee insha allahu prix yéen lay defal boo ñëwee ñun mën nañ la ko defal insha allahu mën nañ la ko defal képp koo xam ne immigré nga jóge Sénégal loolu am na loolu am na. Mhm. ak fépp foo mën a nekkit nag. Mhm. parce que yemale wuñ ko ci capitale bi. Mhm. ci Argentine yaakaar naa ne frontière ba frontière. fépp foo xam ne yaa nga fa boo soxlaa bagage incha allahu dañ leen ko danañ la ko yónnee ndax dañuy yóbbu yónnee bagage yaakaar naa ne ay Comodoro Rivadavia foo xam ne ay 2000 kilomètres la. Salta capitale Jujuy. Cordoba yeneen dëkk yi nga xam ne ay province la Mendoza San Luis. fop ñu ngi fiy dugal bagage. waaw kàddu mooy mujj ci Sénégalais yi. waaw kàddu yi may ci mujj rek mooy a ah, ñëpp xam nañ crise bi nekk ci dëkk bi. Mhm. ah dañuy ñaanal ñëpp yàlla fépp foo xam ne nit a nga fay nekk di daan dooleem. Mhm. yàlla suturaal ko yàlla dimbal ko. Mhm. ba oyofal mbir mi nga xam ne dafa war na diis ba yëpp oyof ci kawam ba fépp foo xam ne mu nga fay liggéey ci am fa ay xat-xat yàlla yaatal ko ba lépp lu mu bëgg rek mu yomb. te it ah di leen ñaanal étab jàmm ñu dugg si ci jàmm ah génn si ci jàmm ci loolu yaa ko yaa xam ci mm-hmm. man xam naa sénégalais yi lu bëgg lu baax rek lañu la ñu bëgg li ma la mën a waatal mooy kenn ku nekk li nga yéenu ci ay soxla boo ko wàccee woon tey xejul ci place bi kon nag dañuy ñaanal yàlla ñi nga ne ñoom ñoo nekk fii ci dëkk bi mm-hmm. ak yeneen dëkk yoo xam ne ñi ngi siif siifar Touba TV Argentine mm-hmm. ciy dégg suñu kàddu ñi ngi leen di ñaanal yàlla yàlla defal leen tawfeex ndax tawfeex ci la lépp xej ndax tawfeex góor ga firee ne ko ne mooy li nga xam ne ab julit bëgg na ko ci araamul ci moom rek yàlla jàppandal ko ko kon nag ñi ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah Ndoundou Faye fàttali nag direction bi refe def yàlla soriwul dara bi jàkkaarloo ak Western Union bi 65 comment waaw ñu ngi nekk ci Rivadavia 25 65 mhm. en face Western Union bi mhm. yaakaar naa bu fekkee ne da ngaa wàcc onze mhm. ñaari mbedd ak place onze su fekkee ne ci congresso bi nga jógee mhm. yaakaar naa ne avant nga egg si onse it ñaari mbedd la ak onse bi ñi nga xam ne dañuy ñëw di jënd bagage daan ko dénkaande ci am jafe-jafe am nga stage boo xam ne am na waaw kay ba tey it sax waaw bari na ñoo xam ne saan dañ doon wàcc fii ci dëkk bi mhm. dañuy wàcc sax teel fee wàcc duñ xam fu nu jëm mhm. ñun am nañ espace boo xam ne boo ñëwee bu la neexee da teg sa saak ci biir dem dox say yitte ba pare ak yi ngay jënd ak yëpp mën nga ko fay defaree tranquille ñu jàppale la nga defar ko mhm. takk ko bu dee da nga koy emballé yónnee ko nga takk ko emballé ko mhm. bu dee it da ngaa sox fu la felete wala ak ku mën di doon dan fexe ba wutal la koo xam ne dina ñëw ci mhm. confiance yóbbu ba fa nga jëm nga mën a def jël sa kaar ñëw dem incha allahu baax na jëre jëf jërëjëf jërëjëf